amis auditeurs merci nuyu nañ leen sant leen gërëb leen ci teewlu gi ci la rajo di du bonheur 97.5 samedi bu jot ngeen ñuy lu kon ñu dalal fi benn ndaanaan tey nag ñu ngi ci Fass seet si nga xamante ni mooy euh, tonton Lamine Ndiaye ñu gën ko xam ci wàllum art théâtre euh, kon moom lay def Anna Thiaw kon moom tamit moom laa àndalaat tey incha allah ñu nara doxal waxtaan ak suñu invité. Anna salaamaaleykum. Euh, bonjour chers amis de la radio du bonheur. Aujourd'hui on a le privilège d'être avec euh, un grand monsieur, Lamine Jai. on va le laisser se présenter. acca tonton Lamine Ndiaye ñu ngi lay nuyu di la gërëm tam bu baax ci dalal gi teel nañoo ñëw. waaye macha allah dalal gi am na solo euh, ñu ngi lay nuyu naan la merci beaucoup en tout cas. ngir boole leen di ñaar ñëpp damay tontu ne maa ngi leen di fay di leen jox seen wàccuwaay. waaw euh, li ci des nag euh, mooy nuyu. téléspectateurs yeeg auditeurs yeeg. c'est un ensemble qu'il faudrait faire. parce que c'est visuel. et encore ya y a l'auditivité qui est là, présente, telle que la rajo par exemple. Euh, donc maa ngi nuyu ñëpp muy rajo bi di télé bi ñoom ñëpp télévision en ligne bi euh, di leen gërëm di leen sant. au passage ñuy gërëm tam ñi nga xamante ne ñoo ñuy teelu ci la télé du peuple Rewmi TV ah amuñu seen pay moi ma toute première question mu ngi ñeel euh, partage man financière bi nga xamante ne jagleel nañu ko ñu yëngu ci wàllum aar am nañu jot seen wàll coow li bëri na ci foo ci taxawee aussi est-ce que artistes yi ñu yëngu ci wàllum théâtre jot na nañu seen wàll ma day ngir wax dëgg rek jotaguma ci dërëm waaw dam naa tey nag ànd ak sama sago parce que xaalis jiitalu ma xëy na man ak ñeneen ñi bokkuñu jëmuwaay ni am am yàlla mooy def lool du sax ku mu nàkkal wala fàtte ñeneen ñi waaye dafa nekk ni rek booy xëccu ci métier bi ñu mel na nga wëlbatiku booy tànn aussi tànn ci li nga xam ni am na solo parce que bari na ñoo xam ni dañuy wuyoo artiste wala ñu mbubboo artiste matuñu lañu doon ay pexe ñàkk nañ ko te sonn nañ lool man nu ñooñu laay njëkk xalaat sax balaa may wax sam bopp jox nañ maag joxuñ ma te it dañ ci ànd ak surtout nag ci jigéen ñi ci wàllu jigéen ñi man dama leen ne yërëm billaahi wallaahi taala parce que gis naa niñ ci yëngoo ñu jël ko comme métier pour wut mais ñu sonn ñu ngi ciy fu nekk nañ fa jaar te bu doxul rek dana am lu leen gàllankoor kon ma yaakaar ni ci biir partage boobu nga xam ne nii jagleel nañ ñu je crois trois milliards la euh, bu doon suma sago de danañ ci bàyyi loo xam ni euh, lu remarquable la jot ci jigéen ñi bu baax a baax a baax baax surtout jigéen ñi jàppale leen ci waxuma dimbal parce que ndimbal yàllaa koy yore ñu jàppale je précise jàppale parce que diggante jàppale ak dimbali dañoo wuute parce que fii Sénégal ku jóg rek def dimbali naa la dimbali naa la woy la mujjee nekk ba nga xam ne nii pour man dafa soof boo xamee ni yàlla moo lay dimbali pour nga mën a jàppale nit donc il faut le prendre comme ça kenn amul màqaama dimbali ku dul yàlla waaye nag may nañu ñun ñii nit ñuy doxantoog jàppale sa borom daal bu nekkee sa wet nga jàppale ko dara aayu ci je crois que c'est ce qui est normal partage boobu muy am signification dëgg dëgg dëgg dëgg dañ koy wéer ci cadre jàppalante d'ailleurs sax partage loolu lay tekk ana alors tonton Lamine en fait ñun lu ñu bëgg xam mooy lu la poussé à faire du théâtre li ma poussé à faire du théâtre en 67 57 la sama yaay génn àdduna Mamadou sama baay ñi ngi rawante 10 ans 67 boobu temps wéetoon naa lool mais bu bi desee rek daaw ma woon son dara parce que ni ma bëggee woon doon ma entretenir. tiilal si sama jàng yàqu. alors comme gisatuma bàyyi gisatuma ndey gisatuma ma euh, c' est comme si on m'avait laissé comme ça euh, may wëndeelu xaw ma fan laay jëm. boulot bi ma njëkk am dans ma vie. Euh, j' représentant commercial d'une boîte. qui s' appelait Anovona. c' était une boîte dégg nga publicitaire. Euh, on faisait des applications boo ñëwee ñu jox la un pourcentage. Mm-hmm. donc application yi ñu doon def euh, c'était tout simplement euh, pour def publicité. nga xam ni un journal comme ça on avait confectionné un journal qui s'appelait PAC PAC les petites annonces du Cap-Vert mm-hmm. donc ci jamono jooju boobu maa ngi liggéey ak tubaab yi ci droit bi lu ñu wér xam ci njàng moomu leen euh, donc du ma première fois mu dugg déjà ci benn organe bu tudd noonu PAC les petites annonces du Cap-Vert PAC noonu lañ ci woon d'ailleurs service géographique bu euh, bi defar soleil moom moo yore woon euh, déjà faisabilité journal bi buñ ko defee ñoom ñooñu doon tirer journal bi Euh, mu nekk journal boo xam ne dañ c'était gratuit dañ ko daan maye parce que comme ay annonce lu ñu ci gën a bari ak un peu de publicité ñuy jaay euh, waaw sant yàlla jërëjëf Gaye Cissé c'est elle moo sant euh, Gaye mais jëkkër yi sant Cissé moo tax mu nuyoo rek ma ne ko Gaye Cissé boole santam ak santu jëkkëram voilà pour ma dellu léegi ci li ma doon nettali léegi donc journal boobu daw na daw na daw na daw na daw ba 1972 nga xam ni ci la conjoncture bi euh, dugg si tubaab yi nar a tëj parce que attanatuñu woon journal gratuit boobu nga xam ne nii non seulement application yi dañu daan fay mais aussi euh, production bi dafa metti woon tuuti leen doon fay service géographique Euh, defaluñu sax benn pourcentage boo xam ni pour xam ni c'est un journal gratuit on payait vraiment gars yi dañu tiire léegi nag euh, yooyu yëpp dafa métti woon ba mu gi tubaab yi daal di ne nañ dellu ñoom ñu dellu daal di fay ñëpp ñi ñi fa nekkoon en tout cas biñ leen fayee euh, nit ñi rentré ñoom it ñu dem donc te amoon nañ projet yu mag yoo xam ne nii vers le littoral la ñun dañuy imaginer woon benn hôtel woo xam ne nii dafa war am ay bungalow yoo xam ne dañ ci projet bi la bokkoon ñu war bu touristes yi mhm. ñëwee. mën fa dal ñu mën leen ko luye aussi pour yokk doole journal bi loolu du wéy na dema dema dem ba nga xam ne ñoom bi ñu kiiwee bi ñu delloo donc man ma daal di xalaat quoi ma amoon ay xarit yoo xam ne dañuy fréquenter maison de jeunes benn bés ma topp leen topp leen ñu ñëw fa. ma gis ñuy def théâtre donc bi ma gisee loolu automatiquement ma gisee ñuy jaagar-jaagar yi ci kaw seen beeg yooyu loolu neex ma ak articulation bi pièce bi ñu ngi ko distribué ku ci nekk téye su rôle jàng ko ba mu mokk euh, mu tombeek la mort du damel et puis am na leneen lu fa doon monté mooy élégie à Aïné Fall nga xam ni c'est un poème dramatique kii ko mooy Léopold Sédar Senghor yooyu yëpp ma fekke ko fa mhm. donc Cissé Dia moo bind la mort du Damel donc euh, li mu ci retenir sax euh, est-il vrai Samba Keul que euh, Bour est près de sa fin mu ne on le dit Latsuka bi moo ko laajoon loolu mu ne ko on le di mais le tamarinier s'accroche à la terre par des racines trop puissantes pour craindre le vent mhm. loolu neexoon ma tellement. Et puis c'est significatif. y a beaucoup de symboles. Donc français la boo xam ni neexoon na ma trop ma ni e man day fii nag xanaa mën na mottali sama école et puis juuma parce que am na lu bari loo xam ne fa laa ko jàng laata may dem bitim réew gëñ diwaat duy gënaat xam gënaat ñor ci métier bi euh, lu bari ma xam ko au moins yàlla xam loo ko donc foofu la ma théâtre jógee waaw mu tombeeg quelle année. 72 euh, bi conjoncture bi waaw. Mm-hmm. waaw donc 72 euh, euh, ñu dugg ci mais entre temps boobu maa ngi doon def musique aussi. ah waaw maa ngi doon def musique nekkoon ci variété rek duñ doon def. xam nga ba dama amoon benn orchestre bu nekkoon sama kër fale parce que fii sama kër ñaareel la mm-hmm. fi ngeen ma fekk. mais sama kër dëgg fi ma juddoo te moom ko mi ngi nekk à la rue 3 angle bon foofu boobu temps am na benn orchestre bu daan ñëw xam nga rek bande de copains euh, donc euh, mu doon xawaare xawaare donc ma nekk fa gimmee fa tuuti donc toppatoo daan def kër ak yooyu tout ça woy boobu sax dimbali na ma ci biir théâtre bi mm. ah ma dimbalee mooy musicalité de la voix boo defee musique nga def théâtre aussi da la ciy gunge sa baat day neex ndax di nga ko togg ba mu ñor lépp luy togg ba mu ñor nag day baax te it xam-xam bi di ci dugg di nga ci découvrir yu bari yoo xam ne nii euh, booy def théâtre théâtre daf ko soxla dafa soxla une voix boo xam ni qui a une musicalité formidable où l'harmonie et la mélodie ont de la valeur donc doo topp di wax di wax di wax e jouer avec les silences aussi ah les tons les demi-tons yooyu yëpp yi ñuy kii yëpp ci musique mais bu defee théâtre mais euh, yooyu yëpp da nga koy da nga koy gisaat mais ci yeneen fànn ah ay soupir yeg yooyu euh, da nga koy da nga koy da nga koy tàmm xam ko fekk yow ñor nga ci loolu nga ñëw def théâtre da yokk parce que théâtre fi mu wuyoo di fa wundu mooy la règle des trois P tout le temps moo wax ko nit ñi saa yoo ko waxee ñu ne la lan mooy loolu tekki mais boo ko tekki loolu ëpp na émission parce que lu ci nekk da nga koy tekki parce que bu ñu nee la règle de trois P pensée parole et plastique bu ñu nee pensée di ko tekki parole di nga ko tekki plastique di nga ko tekki plastique nag mi ngi jëm ci yaram wi tout à fait foofu di nga def la danse parce que sa yaram il faut mu am souplesse boo xam ni boo taxawee sur la scène souplesse boobu dañ koy gis ça te sert le déplacement yi ça te sert booy toog ça ni ngay doxee ak texte ça te sert sur beaucoup yi nga xam ne nii ça concerne ni ngay bouger du yóbbu sa corps ba pare ton corps s'exprime et doit en accord avec ta voix non seulement mm. pensée que conduit le tout Alors, puisque c'est la pensée qui conduit le tout, il y a aussi l'esprit. Quand je parle de la pensée, la pensée est conduite par euh, l'esprit. Donc, quand tu parles de la pensée, en même temps, c'est l'esprit. Donc, l'esprit te guide quand tu es sur Mais cette réflexion, c'est la même chose pour le texte aussi. C'est l'esprit qui te guide. Même quand tu dois parler, c'est l'esprit qui commande la voix. boo jàppee coordination yooyu ba nga ñor ci. di nga am benn plus ci théâtre boo xam ne nii. ñi ñëw rek dugg ci nii doo bokk. foo taxawit dinañ la ràññee. en public booy wax sa baat. day neex parce que bu ànd ak mélodie euh, articulation bi tegu dégg nga harmonie bi tegu mais vraiment foo waxee ñun ñi daal ne ah kii day il a une belle voix parce que c'est a été une voix qui a été travaillée en plus de cela les exercices de diction aussi les gens l'oublient même les journalistes ici euh, quelquefois dañuy am taar ci loolu ah journaliste war nga def benn exercice de diction waxuma benn mais ya y a multitude de, de d'exercices de diction je Forcément. peux ouais quand tu as des problèmes avec les voyelles ou bien les consonnes mais am na ay exercices yu ñu lay jox boo ko tàmmee miinal ko sa làmmiñ l'articulation devient facile et puis da lay yokk day yokk maanaawu baat bi la puissance de la voix kooku moom ay yuuxu la cette lourdeur là ah caverneuse da nga koy travailler aussi ba nga xam ne ni c'est par rapport aux œuvres que tu joues parce que dramatique dafa wuuteeg tragédie tragédie wuuteeg mélodrame drame aussi wuuteeg yooyu yëpp au fur et à mesure ngay évoluer di nga ko xam mën koo tekki jàngal ko sa bopp mais ñi nga koy jox aussi tamit c'est toujours dans cette logique ngay wékku pour mën a joxe un rôle mais soo ci wékkuwul naka ngay joxe rôle boobu ba nit ñi ñëw bëgg la ba pare nga war a du ci cinéma cinéma exigence am lan la euh, c'est ce qu'on appelle la dianétique, une réunion, une de nature, je dirais même de, de tempérament. Maudit, cette réunion est composée de sentiment et d'émotions. Le sentiment que tu as à travers tel rôle par rapport à une situation doit se refléter normalement sur le visage. Alors, l'olof dit, lu feñ ci kanam nuyoon na ca ca ca xel ma. ou bien mu daan ne kanam du kaso. waaye ko ci tëj mu xam ko mais donc yooyu yëpp buñ koy wax ci day tekki aussi tamit métier bi y de a mm-hmm. le sentiment que tu dégages loolu tax ñuy def casting ba pare déglu la ci sur le plan de l'intonation bu ñuy def casting bi ndax baat bi juste na ndax moo yi ngay wax noonu la ndax français bi intonation c'est une affaire culturelle bokkul ñun booy def wolof ak yeneen langue yi gisoo ñàkk yi seen nasaraan buñ koy lakk fi tout est martelé ba nga xam ne nii yow da ngay waaru sax mais tonton est-ce que la jeune génération ne dira pas ku mel ni yow dafa exigeant torop ci euh, qualité artiste. mais exigence boobu du dara bëgg lu baax bëgg loo xam ne nii boo koy jébbal nit ñi mu tegu ci dëgg. Mm-hmm. ñaari fi am jub ak dëgg. doo dugg ci benn métier. juboo ci àndoog dëgg. jub ci métier bi mooy boo xamee xam nga boo xamul neer carrément xaw ma. ñu xamal la tegu ci dëgg mooy loo cee def ne wéeru ci loo xam ne mën na ne wala des fois nga def ko mu ñàkk mën a ne mais les gens rigolent de toi daal di xam ne kii mu xam-xamam ñorul mu tuur ci moom wala wala dafa cuune comme ni ngay wax d'accord alors Anna et loolu c'est méchant ah ah. parce que jàng du wees d'accord nga ni ma fan ma ni la boobee ko ñaari fi am théorie ak pratique bu la neexee nga jaar ci pratique bi duyu mais duyu bu boobaa da ngay am capacité wu saw njàng fireeku ba mën la jàppale ci lan ci tekkin wi baat boo gis day teg lu teyaat duñ ko ñi koy foyee dañ ko xamul dañ yaakaar ne boo ñëwee rek te mën wax boo ñu la tegee rek nga wax wala jaagar-jaagar yi solu ba jekk ñëw daal di jaay taar nangam nangam ak yooyu dennoo bopp bi da koy defar xam-xam bi dafay ñor bu ñorul ñu bari nañ la seetaan weddi la ëppal gi boo jàngee la règle des trois P xam noo koy doose ba doo ci ëppal mm-hmm. ndaxte film je dirais même caméraman yi xam nañ ko ñiy def caméra xam nañ ko te li may wax ni ñoom mën nañ ko vérifier mu di un film ça tourne en nombre de frames frames moo gën a gaaw seconde frames moo gën a gaaw seconde booy def vidéo booy def pellicule ñaar ñooñu ñëpp ñu bokk yëm foofu france yi ñooy gën a gaaw seconde si bien que un geste par exemple ngay jël kaas war ko jël ndànk ni nga ñëw brusque loolu rek mu daal di ko articuler bu ñu lay seetaan daf koy gaawal ba nga xam ne nii yow sa bopp sa boo seetaanee sa bopp nga dañ ne comment man bi may jël verre bi au lieu ma jël ko ndànk mais maa ngi ëppal ci jël verre rek. ba pare mu am ci leneen ñoo xam ne nii. dañ bëgg a euh, génn ànd ak rafet taar. wala ñu génn euh, di xalaat seen bopp ba faf li ñuy war a jouer sax fàtte nañ ko. au lieu ñu indi personnage boobu déedéet. quand même mais foog nga toog ci personnage bi ñu la jox. du début à la fin. bu amee ay variantes. c'est dans le texte. ba pare metteur en scène bi. wala réalisateur bi dina la ko wax ne la fii sax defeel nii defeel nii defeel nii defeel nii. man day fulla laa ci teg. am na ñoo xam ne dañ naan ma. da da dama metti euh, mhm. baaxuma ci jigéen rôle yi ma joué yëpp maa moom lañ may dénk <laughs> wala ñu dénk ma rôle président. Uh-huh. wala rôle kilifa daal. d'accord euh, joxuma ko sam bopp. Mhm. ñoom ñoo may xool parce que casting la. Mhm. yow doo jox sa bopp dañ lay xool ba. seppli la daal ne kii ka nañ ko jox tel rôle. nañ ko confier lii ba pare dañuy wékku aussi ci sa xam-xam. xam nga un intellectuel buy wax rek di nga xam muy wolof ba di ko wax wala français bi di nga xam ni kii intellectuel la koo xam ne nii wolof la dégg daay man dappat bu commencé rek wolof bi bu commencé sax même sax buy jegee euh, intonation wu nasaraan bi euh, di nga gis ni wolof bi ñor na parce que na mu ko travailler travailler baatam loolu mooy indi li tax ma la rek la voix elle est très importante donc loolu mooy indi ñu ne kii day euh, wolofam dafa intellectuel mais aussi loolu am na erreur yoo xam ne ñu ngi koy def parce que léegi xale yi nga xam ni ay journaliste lañu. am na ñu ci bari ñoo xam ni déggutuñu wolof bi. te boo déggutul wolof du la mën a dimbali ci nasaraan bi. ñoom ñaar ñooy ànd. c'est sûr tout culturel. c'est sûr Anita. tonton Lamine. da nga bokkoon euh, ci benn pièce ci benn groupe euh, de pièces de théâtre bu doon tuddoon euh, Daaray Kocc léegi yan temps fort nga vivre foofu Daaray Kocc. musuma bokk daaray Kocc. Ah man jamono yi tey laa nekk. jamono yi tey. jamono yi tey moo jiitu daaray Kocc. jamono yi tey. c'était sous la tutelle ndem si yàlla gi El Hadj Abdoulaye Seck góor gu baax gu bari xam-xam. man ni ma ko daan wooye mooy tiroir à idée. boo toog ak moom daan naa ko def. parce que ban bi muy dugg jamono yi tey fekk naa. ñoom ci seen bopp mu am succion. ma jóge Louga parce que Sëwruba de Louga def naa ko pendant quatre ans. boole ko musique laa fa doon def. boole ko trois ans yi ma def ma loolu tax ensemble bi dama naan sept ans de musique la def. bi ma de jógee Louga donc ñibbisi fii. parce que pour raison familiale moo tax ma ñibbisi. alors ca la vie bi ñëw. daal dama yow. te yaa ngi takk sama doom nekk fii dëkk ak man te dégg naa la ni vraiment am nga xam-xam ci théâtre bi noonu la noonu la ma ko waxee xam mi ngi ci dëgg maa ngi ci fenn yal na ko yàlla yërëm ku baax ku yiw ñi jaar ci moom yëpp bu dee xam-xamu théâtre radiophonie dana leen jox xel moo xam ni nii di nga ko wër ba tayi doo ko gis moom moo confectionné woon ma xuru jege chauffeur de taxi moo doon metteur en scène bi moo doon def réalisation bi yëpp ànd ceeg écrivaine bu Mbenga waaw alors moom papaam moo bind Makhoury Dièye chauffeur de taxi pièce théâtrale waaw bi amoon ay raata raasa xoona ak alaaji moo ak yooyu yëpp ñu ko daan déglu chaque mardi chaque lundi xaw ma daal a euh, la rajo studio A lañ ko doon enregistré donc studio boobu j'en ai goûté parce que aussi il a il est arrivé un moment bi vieux bi euh, bi muy wàcc joge ci euh, ne daal daf koy bàyyi xale yi man la yëkkati teg ma foofu. su sous la sous la direction aussi tamit de Moussa professeur divisionnaire école des arts. dafa waxtaan ak moom Moussa ko kii day vraiment bu wóor la comme yow danga fi jóge mais moom ci boppam mu la mën a wuutu. donc troupe bi na ko bàyyi ci ay loxo. Mhm. mu nekk maanaam le directeur artistique. mu def ce choix am na ñu mu neexoon am na ñoo xam ne neexu leen parce que man dama metti ci liggéey. je suis exigeant par rapport a moi. et par rapport aux autres. kooko laat ci ñoom sax dana la ko wax. alors xaw ma ci caaxaan aw ma ci caaxaan benn yoon parce que bu ñu ci nekkee ma dama ci dem ba jeex. loolu nag xam nga bien sûr ñi nga xam ne nii bon aussi eh, dañu ñëw parce que dañ ko jëlee jàpp ñu ko comme métier. bu leen neexee parce que mënuñu am amour bi nga xam ne nii yow mi nga xam ne bëgg nga ko def métier. Mm-hmm. dégg nga yéenay bokk. alors donc ma continuer ci loolu. continuer ci ba ma dem ba nga xam ni maa daan bind ñu war ko jooy bi ma bind donc mooy Cheikh Maïssa Yaye doom ji pourtant Abou Camara ma nga fa nekk te lu ñu tëlee ci ci wolof bi dañuy kii ci nasaraan bi moom mu tekkil ñu ko donc vieux yu mel noonu boo nekkee ñoom aussi dañuy doon lekku lay doon parce que la langue utilisée moo doon wolof bi parce que moom la ñuy def ci dramatique yi moom la ñuy moom le peuple daal xam donc ñu wékku woon ci loolu waaye lu ñu ci nar a wax nar a ñagas ñoom seen bopp ñoo ñuy alerter. Mm-hmm. nañu deet baat bii bu leen ko waxee bu leen ko waxee bu génnee day ñaaw. na ngeen wékku ci seen culture. te bàyyi xel ñi nga xam ni nii eh, ñoo leen di seetaan. bëggu ñu dégg bañ langage bu ñaaw ngeen di ko wax. na ngeen ñu wax li ngeen nar a wax ñu tekkil leen ko ñu seet baat boo xam ni moo gën a neex dégg te oyof naa lijjanti. Mm-hmm. noonu lañ ko jàppee ba nga xam ne ñun ñu ko daan def. ñu si bari jàng dañ fi wolof. parce que man maa ngi nii. man ci la parce que dama ñëw ak intellectuel boo xam ne nii xam théâtre boo ñëw euh, art dramatique bi bëgg ko fa teg loolu moo tax artiste jamono te nuruwul ak benn artiste mm-hmm. suñu répétition ñun dañ daan naw suñu bopp yàkkamti woon ko pourquoi parce que dañu ñëw rek teg ma xam liggéey ci xam-xamu théâtre mm-hmm. dëggantaan daawuñu ko woon génn ba tax na aussi tamit pièces yu bëri yu ñu daan génne di tax nit ñi soppoon ko moo di tout simplement nañ koy liggéeyee te loolu il faut rendre aussi à César ce qui appartient à César il faut être honnête dans la vie Cheikh doonoon na te koo xam ne nii sensibilité Sénégalais yi xam na ni mu leen doon touché bindam set aussi tamit mu nekk ku brave xeex na fu ne bëri na fu ne moom it euh, il était pour la promotion mhm. euh, des des dramatiques à la télé moom moo njëkk indi tournage extérieur man maa ngi woon jamono tey moom daaray Kocc la nekkoon moo doon kilifa ba foofu. Euh, alors jamonoy tey ak euh, daaray Kocc. dañ doon demlante les relations étaient comment reluisantes. non non foo gisee ñaar ñu déggoo rek am na commencement bon. dama leen teg kii yëpp yooyu amoon na suñu biir gaa parce que même groupe bi la woon au départ mais scission bi mu ñëwee maanaam teqalikoo bi donc ñii dañu mere mere góor gi ba tax na nanguwuñu dem leen teg kenn ñenn ñi merewuñu góor gi mais lu je sais pas xam nga ñu loolu nag dañ leen koy laaj ñoom loolu ko mën a tekkil man dama ñëw fekk benn situation mhm. li ma lay wax nii sax xëy na ëpp na xëy na waruma ci woon jaar waaye ak lu mu mënti doon dama la misaal tuuti ne la dëgg ak jub yàlla daf ko bëgg tey bu ma dee woon tey dama leen di fekk ji ñoom ñi ñuy jiitu yi mais yàlla na yéex te maa ngi ñaan yàlla ña des ci daaree ci ñëpp ak jamono jamonoy tey ñi ci nekkoon ñëpp yàlla may leen gudd fan ak wér wérle ba li nga xam ne nii bëgg nañ ko lool ci théâtre bi ñëpp gaa mënuñu ci tekki mais képp koo xam ne nii yàlla may na la ci chance yàlla na nga tekki ci barke Mouhamadou Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam je rappelle qu'on est toujours avec l'artiste comédien Lamine Ndiaye ma jox ki nga xamante ni mooy Anna mu poursuivre ak moom alors gis nañ ne actuellement yaa ngi ci euh, dans maîtresse d'un homme marié wax ñu comment euh, noo def ba rejoindre euh, cette série comment ça s'est passé su ma soxna si nga xam ne nii moom laa dénk côté boobu parce que je suis sollicité d'un peu moom laa bàyyee loolu parce que intellectuel la donc moom it gis na ñi fiy ñëw pour ñu jàppale leen aw mbaqama dimbali jàppale leen mu ne ma waaw yow ñii bi fi ñëw bari nañ di te kenn du la ci jox dërëm qua ngay def loolu mën ne ko mën day ba mooy door dañ ma yombaloon kon delloo njukkal hmm, ñi nga xam ni nii ñi ngi ci métier bi ñu nekk ay ndaw lu ma yitteel parce que dafa mel nii delloo njukkal bi que ñoom aussi tamit seen formation jéem nañ wut bunt tëlli nañ mais bu ñëwee ci yow yaakaar a tax te yaakaar dafa fort nit it yàlla daf ko fonk lool loo def ci moom yàlla fay la ko mun ne waaw loolu mënoo mënoo ci wékku ndaxte yaa ngi nii sa situation changé na yaa ngi ñaari soxna il faut nga toppatoo njaboot gi yooyu donc jóg daal fayeeku ci li ngay def baax na ci ma ne ko waaw bu fekkee ni yow mën nga ko yor baax na mu ne ma ah parce que yow duñ la sax jox paas yow yenn saa yaay paasal sa bopp dem fekk ji rek mën na ko alhamdulilah yàlla ndem mi ngi ma koy jox rek baax na xam nga doylu doylu nit daf koy def valeur la boo xam ne bu am solo la ci àddina suñu nguur yii di jiitee Sénégal na nit ñi liggéey maanaam am culture doylu c'est très important li bi leen di wax alors euh, ma daal di ne ko nag man daal noonu laa ko gisee lu ma ci yàlla jox nag muy loolu mu jóg moom it di ko toppatoo mbërëw di yore affaire bi du bii rek lañ ma woo ñu woowoon nañ ma bu njëkk ci bi may joué président bi ci Golden xëy na liggéey boobu aussi tamit neex na leen ak sama jëm aussi tamit dëppoo personnage bi ñu sox ñu daal di ko woo waxtaan ak moom teg les mêmes conditions moom mu daal di xool loolu daal ne baax na comme sama jëkkër ni njëkkoon na ko def te c'est les mêmes conditions donc euh, naa dem wuy ji ma jóge fi bu ma ko waxee ma jóg ñu convoqué ma ma dem ñu liggéey bu ñu fayee sama xaalis ma séddoog sama ñaari njaboot def fii def fale donc noonu la problème boobu demee mais yi ci boppam dañu nekk ay producteurs yoo xam ni pour man xaw ma nu leen nit ñi jàppee de mais de man fonk naa leen parce que sama dara du tarde ci li ma gis xëy na ñeneen ñi boo leen demee laaj leen ñàkkul ñu am benn sikkange boo xam ni kii na li ma leen di wax ñu redoubler ci effort rek mooy c'est un problème d'organisation dégg nga mais suma soxnaa ngi nii mën na témoigner xam ni lépp mu ngi ko dox te amul ci benn difficulté. dégg moom daal laa ko jox mu doxal ma ci fànn boobu moom mooy dem wuyul ma mbarooti doxal ma lépp defal ma lépp ñëw daal ni ma yëf yaa ngi nii. Mhm. man loolu la ci am. donc euh, su ma digganteeg mbaroo ji noonu la demee. Mhm. kaay def ma def kaay fayoo ko ma fayoo ko. moom elle s'y connaît elle est dans le même métier que vous. non non il n'est pas dans le métier. dama xam ni su ma mënu fa teg keneen parce que aw ku am jàng bi mu am fu nga ko gisee ci moom kay lu muy toogee fii te deful dara ma dugal ko ci biir il y a une question aussi d'honnêteté nit waroo ko nëbb li ngay am soo bëggee mu muñal la wala mu toog ak yow wala mu nekk ak yow li ngay am na ko xam waaw bu ma dugal ko ci ce n'est pas parce que c'est un choix mais tout simplement ay critères tax ma jox ko ko mët li mu doon ñàkkul fayda bëgg na jëkkëram te ni mu ko bëggee xam naa ni bu dara destul lu mooy wutal ko contrat wala leneen buy xàcc kay day xàcc fa gën baax ma sant ko ci lool gërëm ko ci donc euh, loo xëccee mbir mu dem àll xëcc ko mu ñëw kër alors tonton bëgg naa nga euh, apporter une analyse ci théâtre d'hier à aujourd'hui beaucoup de choses ont dû évoluer ah tey ji yow ban jàngat ak ban commentaire nga ciy def aussi qu'est-ce qui explique ce bon de téléfilm là on assiste à beaucoup de téléfilms qui sont conceptualisés di daw ci télé en ligne surtout waaw xam nga télé en ligne soo gisee yëf yi sakkan foofu le fayee ko bu ñu fayee ko ci YouTube xaw ma ñaata la de dégg naa ni daal euh, vues yi la ñuy calculer parce que man dugguma foofu léegi càggante la am du càggante déedéet. damay bañ lamb lool. beneen bi moo di luñ bëgg bëgg xaalis man maa leen gën a bëgg xaalis. du ñàkk fayda kon. parce que sama situation sax laaj na loolu war ma war a bëgg xaalis. mais xam nga nit ñi dañ jaar fii yow nga jaar fale man sama liggéey li ëpp nekkul ci ay télévision en ligne. yi nekk extérieur voyager dem ci ay projet yoo xam ne nii ay tournée la. wala dem na tourné dem tourné dem tourné ba bi mujj vraiment fay nañ ma dëggantal waaw te du ma tudd ñi nga xam ne nii ñoo ngi ko jox dañ ni kéwél bu ñamee alom rek na ko gërëmee cooy maa ngi leen di gërëm ñooñu lool ñoo xam seen bopp payoor bi daal moo wuute parce que booy xëcc mu dem àll ba foofu euh, fa la théâtre bi gën a siiw gën a baax mm-hmm. gis nga euh, am na benn kii bu nekkoon fii léegi euh, ci reconnaissance bi. Euh, la trophée waaw benn trophée. waaw. kii moom. bu ñu la ko joxee. cela veut dire que seen dëkk da fa siiw. Afrique da fa siiw. donc muy liggéey lu bari. ban dëkk lañ la ko joxee. waaw ñoo ma ko joxee Burkina Faso. donc ñoom ñoo ko def. jox ma ko fa mu nekk raaya boo xam ni fonk naa ko du moom rek laa am ci raaya gis nga photo bi aussi ay jeunes yu nekk fii nekk dans les téléfilms ma leen di gërëm di leen sant classe A ci ko liggéey doon suma doom bu ma ràññee ku ma bëgg koo xam ne nii wax dëgg fa yàlla bi may jox rôle boobu ci classe A dafa nekk koo xam ni nii daf ko étudier bu baax daan ne xaaral boole ma ci man boole ci Pape Faye donc mu nekkoon ñaari pilier boole ci encore yeneen artiste loolu ma ko ci gërëm di ko ci sant dégg nga mhm. ku njaxlaf la ci liggéey bi njaxlaf parce qu'il est exigeant aussi tamit moom sax ak Tony ak ñeneen ak euh, Njar Mbay mhm. bi nekk euh, RTS je crois que am na moment boo xam ne dans leur vie dañu liggéey ndoonu ensemble Euh, fii ci jàkkay cëriñ bi donc euh, ñoom dafa fekkoon ñu nekk en compétition ci nawetaan yi ñu liggéey benn pièce boo xam ne ba ñu demee dañ ci am raaya bu bu bu am solo donc man ci liggéey yooyu laa nekk dégg nga télévision en ligne yi bëgg naa ko trop téléfilm yi surtout ak jeunes yi léegi ni ci ci genre yu mel waaw si bëgg siiw la wala qu'est-ce qu'il siiw a ngi ci wut koppar a ngi ci ñaar ñooñu xay bas dañuy remarqué ni fii ku siiw yow la ñu gën a fulaal. mais mhm. ban siiw ndax siiw buy continuer la. wala siiw boo xam ni c'est pour un moment bien donné et après on te met aux surtout fii Sénégal. <laughs> la gëjee gis rek on te met aux oubliettes fàtte la. ñu bëri siiw nañ fii mais fan anuñu tey bu ñu génnee àddina duñ leen sax fàttali ko xam ne lii dañu bokkoon ci patrimoine ma jox la ci benn cas. du jóg ki doon woy eh, eh, liy jaay ca jaba. xam nga ko liy jaay ca jaba. <laughs> am na sax ñu ko jël. dugal benn vi vidéo benn américain boo xam ni comme day rap rek. di ko wax xaw ma sénégalais la xaw ma mais biir bu rëy la yore. <laughs> dégg di ko def. wut buzz aussi tamit tax na ñu euh, dugg ci télévision en ligne yi. Mm-hmm. parce que boo amee buzz nit ñi dañ lay gën dañuy gën am attention ci yow. ci lan ngay amee ba ñoom seetuñu ko sax am na ñoo xam ne nii dañ doon fecc ba ci yàgg si rek jékki-jékki jaane faj dugg ci théâtre man gis naa ci ay xale yoo xam ne nii ci fecc lu ñu jógee rek dugg ci théâtre wala fecc tension théâtre ba tey tekkiwul ñoom li ñuy def parce que actuellement ñi ngi ci biir mais nañ xam ne ay acteurs la ñu nekkuñu comédien théâtre kat mooy comédien ba dafa wutee y a nuance c'est quoi la bien nuance bi mi ngi nekk ci ne boo nekkee acteur ñun ñëpp ay personnage yu wuute personnage de la vie personnage yoo xam ne nii mën nañ leen utiliser dans le métier parce que nee naan le fait casting la def te ki ñu soxla aajuwul sax muy def théâtre parce que théâtre nag répondant am technique boo jàngee technique boobu di nga mën a ñëw dugg ci bokk ci théâtre bi parce que foofu distribution la ñuy def dañuy xool say capacité ñu dénk le rôle mais bokkul ak cinéma nga xam ni casting la ñuy def dañuy wékku ci sa xel wékku aussi tamit ci sa ci nit ki nga doon est-ce que tu fais le personnage wala déet donc loolu moo tax ñu bari daal di fiddi jëm fa ñu mbëri yaa ngi ci biir man na kan yaa ngi ci biir mais ñu ci bari siiw bi moo leen ëppal solo ka ñëw indi ci apport technique bi ka ñëw indi ci xam-xam bi siiw bi mi ngi mel ni ku musul bëri dégguloo mbër yi di xasante daan ki kii mbappatu c'est vrai que boo mbappatee ci biir théâtre bi sa jaar-jaar bu xase ba bari rek dégg nga jaru ngay jéem wut sax xam parce que xam nañ la ba pare boo jaaree ci mbappat xam nañ la ndax di nga daan wala doo daan xam nañ ni yow li ngay def wékku na wala wékkuwul ñor na am ñorut am na fulla amul fulla mais ki nga xam ne nii mbappatul ci bi nii rek la ci dikkee moom dafa bëgg a siiw donc su bëggee siiw nag loo ko jox daf koy wékk ci di mu mënee am na ñoo xam ne ñu wékku ci reeloo nit ñi donc waaye sepp leen nga yóbbu leen ci dara parce que comédie bi dafa bari trop ci réew mi ba fulla gi am war a am sax ci théâtre defuñu tuñ ko dañu bàyyi léegi pax mi mu yaatu mel ni paxum jana jana bu gasee fii day gas feneen fa ndax boo ko dàqee fii mu fël fa ca des d'accord faut qu'on y aille vite daa mel ni euh, oui ma consoeur Anna elle a aussi euh, une n'est euh, que dans Maîtresse d'un homme marié. Vous avez retrouvé euh, une ancienne collègue, euh, Mariam alias euh, léegi euh, qu'est-ce que cela vous a fait de de de la retrouver de rejouer avec elle. j'ai découvert euh, un côté boo xam ne nii. waxuma sax bett na ma parce que daan naa ko gis daaree coach muy jouer. waaw mais dama doon def man li ma bett ci moom. mooy tout simplement xam nga nit ki bu ñu la booleek nit. ay appréhension yi ngay def ak préjugé yi day bari. Mm-hmm. dama fokk ni nit la ko xam ne day wékku ci préjugé. parce que man neexumaa sopp lool ndar gi ma soqe ko dañ naan dafa bari tiitar dafa mën gëdde booy joué moom du la may jàmm dalay indil personnage boo xam ni foo jaar nga ragal kook yooyu wutuma lool rôle yi ñu may dénk moom dong moo demee noonu moo tax ma jël ko boole ko ci biir mais man je ne suis pas agressif je réfléchis avec mes épouses kenn ki j'ai fait quarante cinq ans ak moom ci je viens de faire cinq ans jàpp ci six ans fi mu nekk nii mooy ku toog seen ginnaaw. donc si j'étais vraiment ça. ba ñu ak Lamine ñoo dëkk pour dire vrai. léeg-léeg mu am ay fluctuations. mais il faut savoir gérer des situations justement. parce que ci la ñu xool ndax góor danga koy mët mën ko. góor boo duggee ci sëy da nga koy mët mën ko. so lu ci wàññeeku rek day feeñ ci biir sëy soo mëtul doo mën a transcender mët ci xel la nekk. mët mën ko il faut être mûr et stratège. sinon sëy boo ci duggee rek. day yàqu même chez les célibataires laa la wax ñi les les les monogames c'est ce qui viennent de se marier s'ils ne sont pas imbus d'intelligence de tact et de vision et de euh, prévision dégg nga seen sëy day kalang-kalang yi rek sëyu doxandem lay doon tonton Lamine quelle a été votre plus mauvaise expérience ci sa art et aussi est-ce qu'on peut dire que le théâtre vous a enrichi je dirais oui une et non le théâtre m'a enrichi sur le plan intellectuel mais sur le plan financier maa ngi gërëm yàlla sant ko mais ñaan ko mu dolli mm-hmm. waaw parce que am na beaucoup de choses yu ma bëgg a def mais ñàkk ay pexe wax nañ ma yoon wu ne naa fa jaar mais man ci sama jëmmi bopp dama rëylu ku may defal dama rëylu ku may defal bëgg naa su ma jàkkaarloog nit lépp lu mu soxla billaahi wallaahi talaahi su ma ko amee ma bokk kook moom wala ma jox ko ko le sens du partage je vis je l'incarne parce que je le sais j'ai beaucoup d'expérience dans le sens du partage leneen li loo dund mu metti la. benn la boo xam ni dama dem Grenoble. xam nga fibro bi ma yore. je suis de nationalité sénégalaise. ma ñëw fekk fa benn groupe bu femmes yoo xam ni. dañuy def spectacle. spectacle bi sax ñun ñoo ko waroon def. Mm-hmm. bokk na ci li ma gën a yóbbu. ñu dem fa on n'a pas eu temps assez de temps pour monter li nga xam ne nii moom la ñu moom la ñu indi woon c'était une pièce de Alioune Badara bi te man maa waroon def montage mm-hmm. mais avec ces femmes ak ñeneen ñoo xam ni dañ leen jëloon ñu ngi woon ci liste bi mais man donc dem naa toog di déglu di déglu di déglu ma gis ni femme yi daal seen affaire wóoru donc mais quand ñoom ñu dëggu rek ci ne dañuy def spectacle parce que lancé nañ seen carte ak yooyu yëpp tout sax bi dara su lu mooy spectacle bi commencé ba gis lañ ñu nekk foog naan gumbe leen gumbe fi xaw dañuy doo randaw ba gis ñu koy defee noo xam nii tuwaat fa kàll macha allah wax dëgg fa yàlla. neexul baaxul. ñu mujjee ci ndaw raam bi bi suuy doom. bu la xaw ma lan lan ak lan <laughs> man mujjee naa di ree mais dañu jeexal. sant kenn tàccuwul de. parce que tubaab bi moom booy deful loo xam ne nii xele ngi ci. wala lu am solo. ah du tàccu. je me demande est-ce que suñu artistes yu bari fii bu ñu demoon ak yi xew ci télévision yi yooyu ak ni ñu moddeeg yooyu tout ça bëgg ku leen ree bëgg ku leen mais tubaab bi dinaan mëng parce que ni la mëng rek di xool. alors comme sénégalais la ñoom ñu nekk ay sénégalaises maanaam ñoom ñoo bokk réew. maa ngi toogoon ci biir salle bi foo xam ni tubaab yëpp mu ma entouré. mais ñu pare rek. ma daal di tàccu. pour bëgg a yóbbaale tubaab yi ndax ñu tàccu. waaye rëccu naa ko bu baax a baax loolu moom metti na ma ci sama àdduna wax dëgg fa yàlla. parce que bu neexoon sax ñu mën a wax. mais xam nga topp daan gumbe leen gumbe fi xaw ak jékki-jékki ndaw ràbbi bu suuy doom. dégg nga et puis ak fecc boo xam ne ñàkk mën fecc bi. c'était naze. très ridicule. Mhm. donc man ma jékki-jékki tàcc parce que sénégalais la mhm. ñun ñëpp saal bi de dañu tourné di ma xool gestu ma ma ba bugg a dee ma rus ba bugg a dee dégg nga nekk cundum daal benn ñebbi ci cin rek laa nekkoon bés boobu euh, ma génn sama waaw waaw loolu sax parce que bu doon sama sago lu jóge Sénégal day ñor taxaw dëggoo mhm. ñun ba ñu tenir ga ñoo wax leen diñ leen wax dañu dëgër bopp parce que dañ leen waxoon dàq leen ko mhm. ñu mën def lu baax monte ko mais ñu dëgër bopp daal ne sànni nañ carte bi ba pare il faut que ñu def dara. d'accord alors euh, quelles sont vos activités en dehors du théâtre. wala dem comme tudd nga maîtresse. Mhm. d'un homme marié. ah dem joué ji. en dehors du théâtre j'ai d'autres activités seetaan télé. le football neex na ma ça me passionne. si bien que mën naa jàkkaarloog télé bi. trop longtemps bu ma jógee ci football bi dellu ci filme hmm. waxtaanee aussi tamit métier yi parce que les jeunes se regroupent ici fii lañ may fekk euh, ñu bëgg liggéey dara ma toog ci wax leen nak la ñuy jëf yooyu teg leen ci yoon daal wala buñ ma soxlaa man maay déplacé wu dem fekk ji leen euh, ñu liggéey en dehors du théâtre vous avez une qualification professionnelle autre amee ah, man fi ma jaar pare nga dañuy wax naan bëri mbubb xam nga boo bëree mbubb di li nga sol grand mbubb mais loolu dama si jaar dama koy nëbb mës naa ko nëbb sama giru dund yëpp dama ko nëbb man tam tàmm di tal-tali nii laa mën lii laa mel nii laa mel non non je préfère ñi di ma découvrir petit à petit fu ñu ma fogeewul rek ma fëlëf ca fa ca des mais sànq tam wax nga vous êtes vous avez des connaissances en média waaw lu ci mel ni wàllum rajo waaw ndax dama géré woon pendant trois ans rajo Jàppo FM nekkoon le directeur de cet rajo communautaire vraiment am na ay seede yu rafet yoo xam ñoom ma ko yónnee ci WhatsApp ma di leen gërëm ñoom ñëpp xale yi fa nekkoon di leen ñaanal yàlla parce que looloo ma deseeg ñoom parce que na ma daan def mënatuma ko tooglawuma sama bopp de wala bañ a bañ a def ay affaire rajo yooyu tout ça j'en fais bien mais gérer ci rajo dinaa ko xoolaat parce que stress bi ma daan ànd kenn xamul ni mu toll. parce que quand tu es responsable euh, d'une chose comme ça le plus souvent responsabilité bi da lay gagné. ëpp la doole. tu veux bien faire et trop bien faire. parce que ça a été un défi. je pense que je l'ai bien relevé. tonton euh, tonton Pape euh, euh, quelle est votre relation ak euh, ku ci mel ni Pape Faye parce que on sent que y complicité et aussi de des fois est-ce que duñ leen wax ni da ngeen duroo euh, ay gestuelle ak votre façon de parler. wax nañ ñu ko ba taay. <laughs> vous avez des relations particulières. justement euh, dafa lu ma gêné lool ci question bi. Mhm. li ma laaj. dama lay njëkka a laaj yow delloo la laaj bi euh, da nga gis ñu doxalee neneen lu dul jubóo. kon nag jàppal ni sama xarit la man it xaritam la uh-huh. waaw alors euh, tonton Lamine euh, ban conseil ngay jox euh, à tous les jeunes qui qui voudraient euh, se lancer dans dans dans le théâtre j'aime bien le répéter La Fontaine La Fontaine disait que la patience et la longueur de temps font plus que force ni que rage donc bu ñu yàkkamti nañ ànd ak tey te xam fi ñuy teg seen tànk gën a togg affaire yu mu ñor. je ne dirais pas qu'ils ne sont pas sur la bonne voie parce que actuellement euh, dañ ci boole ñaar le théâtre et le cinéma. d'où ñu nekk comédien en plus de cela ñu war a nekk ay acteurs parce que nuance boobu. soo ko mënul régler du sotti. tout se joue au niveau de l'intelligence et de la maîtrise de soi. maîtrise de soi maîtrise aussi du métier. parce que si tu ne maîtrises pas fait appeler comédien mais day doy waar bu la joxee texte bu mel ni ki par exemple de rouge elle est vêtue ce soir l'illustre mémoire des ancêtres oui de feu le conte de ce soir est un conte de feu il est brûlant et commence par des larmes qui sous le joug de l'histoire creusent des sillons de plaie quatre nuits quatre veillées funèbres célébreront les funérailles de Sankati mm-hmm. mais le ko danga may xool ne yàcc yàccaaral wala nga daal ne waaye kii daal nangam nangam yooyu fekk yow li mu wax mi ngi ko ci théâtre wax na ko parce qu'il a voulu c'est l'histoire de Thomas Sankara qui commence il t'a parlé de tragédie de quatre veillées funèbres célébreront les funérailles de Sankara donc c'est tragique mm -hmm. funérailles fu ñu koy célébrer rek il y a eu un mort les funérailles de Sankara c'est pour ne pas répéter le nom de l'auteur même de cette tragédie qui est Thomas Sankara ñu jël ko donc wékk ko Sankadi auteur bee ko def moo ko bëggee noonu on l'a respecté ça m'a permis de faire une tournée internationale et d'aller jusqu'à la comédie française là où tu joues et quand c'est pas bon les gens ils sortent ils sont dans le hall et ils t'attendent à la sortie c'est eux-mêmes qui viennent te demander est-ce que c'était bon le spectacle looy yow dem nga pour jouer soo demee pour jouer euh, ba ki euh, nga génn public bi mu ngi mel ne nga duggoon Sorano rek jouer ba pare nga génn public bi génne ñi ngi ci óolu Sorano ñu naan la li nga doon def neex na xam nga da ngay tuuti su beneen yoonee boo naree dem Sorano di nga ko waaj mm-hmm. wala lu mel ni grand théâtre di ko waaj tonton Lamine nee nañ tam xale jigéen yi sonal nañ la que di jamono tuuti ci ginnaaw da nga mës a nekk jantal paa dëggantaan. mosul nekk ci sama xel. appellation boobu. xëy na nit ñee koy def. c'est suivant ton yaa ngi may wax affaire geste ak pafay yooyu. Euh, ni ki man ni ki moom ni ki moom ni ki man. Euh, donc euh, boo duggee ci métier bi nga xam ne am na. wax mais am nga loo ci dund ñu lay def la cour di la sonal pour que. mënul ñàkk parce que jigéen ñi aussi dañ bëgg lu baax bëgg lu rafet mënul ñàkk wax dëgg rek. mënul ñàkk mais sooy tontu da tontu ak diplomatie respecter aussi tamit la ji euh, la personne parce que boo xalaatee ni jigéen moo la jur rek war nga ko jox cëram moom dafa wax bëgg-bëggam mais taxul ne bëgg-bëgg boo gis rek war nga koo accepter xanaa doo ko xool doo set ba xam ndegam kii kii boo juumee nag tànn loo xam ne nii musiba la lay indil du ma ni jigéen boo ko tànnee musiba la lay nga tànn loo xam ne nii xëy na yar ga wala na ma waroon mel melu ko léegi xam nga jikko moom lu ko nit nit nit dàq dafa te ticc dëgër fit ah dëgër fit dëgër fit dëgër fit boo xam ne nii foo natt ay pexeem rek weesu ko waaw alors Anna peut-être la dernière question. léegi on va passer à la dernière question gis nañ ne que en ce moment dañoo euh, nekk ci benn période boo xam ne assez compliquée. on va parler de la Covid 19 léegi est-ce que mën nga ñu wax euh, loo ci xalaat. qu'est-ce que vous pensez de la Covid 19. waaw xam nga man ci cinq barrières yooyu daf ci am benn barrière boo xam ne. je suis en train de me poser des questions. bi ngay sëqat def ko au niveau du coude. wala ngay tichooli def ko foofu. te bi ma te école jàngal nañ ma science naturelle. sur euh, l'humain ne li ko ferme yëpp surtout sa peau. dafa bari pores. te pores yi ñu ubbiku mun a noyyi. nokki boo xam ne ni moo koy permettre moom mu dund ba la peau aussi tamit da nga ko war a sauvegarder je suis d'accord sur une chose nga jël mouchoir saqat ci wala jël mouchoir ñendu ci mais pas nga tichu li naan nii mm-hmm. parce que bu fekkee ni ndoxu pétrole boobu la mën na dugg say port mhm. du dégg bu fekkee ni saqat la aussi tamit mën na dugg say port donc foofu daal laa am inquiétude mais li ma leen di wax rek mooy feebar bi c'est pas la peine ngeen di dute ndax am naam amul dana mattem du matte daal bu jox solo takkal masque xam na ñu bari ñoo xam ne dafa leen di gêner xëy na ànd nañoo que feebar boo xam ni lu lu jëm ci seen now dafay dañu am difficulté. waaw ah, donc euh, waxuñ la nga takk ko tout le temps mais takk ko ci moment bi nga xam ni tu de déplaces. mën nga ko tekki à des moments pour pouvoir respirer encore. Hmm? Mm-hmm. bu mu la sonal trop. mais li gën mooy. boo xalaatee ni. boo koy takk du pour yow. mais c'est pour l'autre masque bi kan moo tax nga di ko takk pour sa bopp la wala. pour l'autre maanaam sa vis-à-vis. Hmm? nañ bu baax. xam nga man booy ñëw. bëgg naa nga takk masque ma gis ko ci yow xam ne yow jël nga say matuwaay mais su mu la gisul nga takk masque am na déjà doute daal dina kii moom takkul masque daal di rek dugg sama kër ndax àndul ak jàngoor bi parce que yow xamoo ay supposition la mais c'est c'est sur la vérité quatre heures du matin laay jóg mm-hmm. su ma ci jógee ñaanal askanu Sénégal yëpp yëpp man ñëpp laay ñaanal mm-hmm. li may ñaanal sa bopp damay ñaan wax suñ borom ne li baax ci man mm-hmm. gën ci neen ñi tamit yal na ko yàlla def amiin ci barki rasulillahi lu baax lu ne yal nañu ko yàlla boole amiin tonton avant ñoo clôturer j'aimerais aussi nga ñëw ci sa euh, moi j'aimerais que nga wax ñu un peu ci sa look parce qu'on avait l'habitude de vous voir en costume euh, avec une touffe maintenant da nga jëm mag moo tax nga bàyyi costume bi wala biir moo tax et aussi lan moo tax nga préféré watu non dama demoon màkk alaaji bi bokk na ci waaye ba léegi maa ngi sol costume terewul ma ko. gëj naa la gis nga kosu de. ah mais kon yow fekk loolu ñu ci <laughs> ci liggéey bi. dañuy dóor costume ba mu bien. bu sama jabar ñetti abdu moo ëpp de. waaw ñetti abdu parce que mag nag. bu ko bañ parce que fala budd ñun ñëpp fa ñu jëm. maa ngi fi yore ay vidéo yoo xam ne nii boo ko xoolee wala ay photo yoo xam ne boo ko xoolee rek yow da ngay xam ni rek ni àdduna moom du dara. tuuf bi c'était joli ah. waaw c'était joli. mais mënuma garder tuuf boobu ba dugg biir suuf. karaw sax day màgget. moo tax muy weex. moo tax lii weex. xam nga lii ba muy bàyyi tuuf bi. maanaam afro bi. weexul woon. aw woon sikkim sax <laughs> boobu muy weex. Euh, benn ñaar aussi. ma nekk koo xam ne nii aussi. sopp naa ko ci trop parce que demoon naa ba nga xam ni du ma woon jox suma yàlla te actuellement wax dëgg fa yàlla soixante dix ans yi dugg naa ci bay bay teg bay teg kon nag euh, comme maa ngi jëm foofu te xam ni je suis beaucoup plus proche euh, maa ngi naan plus euh, bëgg wax sax proche de la mort que de la vie mm-hmm. alors donc lu ma ko taay taay di afro yooyu dootul am donc naa ko bàyyi ni ko yàlla bindee rek mm-hmm. ni mu ko waxee d'accord te dama doon ñaan yàlla am ko. man ba jaaw neex na ma. alors tonton c'était un plaisir cette conversation. naa la dolli leen. sama cosaan ñaara ko seq. ñoom ñaar yëpp mu ngi sama pap di sama yaay. ndar lañ juddoo. ndar-ndar nga ko 100 pour cent. du ndar-ndar man Dakar waala. fii ci dakaar gii laa juddoo. suñu kër. à la rue 3 angle 16. Médinois waaw Médinois pire. parce que samay jamono. bu ma la ko nettalee sax mët na émission. <laughs> alors sam papa bambara la mi ngi day eh, jóge moom Pomokhor. tu te rends compte mi ngi juddu xam nga kañ. le 12 sa 1888. ça fait très longtemps. alors décédé en 1967. sama yaay 1920 fekk na ko fii parce que moom it ndar la jóge a bokk ci famille bu mag à Saint le grand boxeur de tous les temps Mbarick Fall. du côté de ma mère maam la ci man. Mbarick Assane Dame daam mooy ki nga xam ni dafa nappi woon géej. ñëw indi fasu wurus fasu boobu le dafa tëb dugat ci dex gi dugat ci géej gi parce que dafa trouver woon attroupement di koy daam di indi avant d'arriver à la baie nit ñi dañ ko doon seen naan daam mi ngi dëkk ak gaalam napp na fasu wurus napp na fasu wurus di ko wax noonu fas wa tiit ne waat cumbax ci géej gi mm. dellu ci ay nettali nee nañ ma su ko wàccee woon dañu nekk donc une famille boo xam ne très riche mais cette richesse je ne l'ai pas perdue mhm. parce que defar na ma ko ci xel richesse boobu nag moo gën loo gis ci àddina bokk ci famille boobu aussi am na importance géet ndar but ba but samay mbokk rek ñoo fa ne buñ fa àndoon tey dañuy dugg kër gi génn duggaat ci beneen kër gi ndar moom noonu la kii agglomération bu fa am ci buntu gétt ndar ba nga yegg ci jàkk ji ñoom ñëpp samay mbokk lañ du côté de ma mère du côté de mon père mon père les gens se ndax bokkul sax parce que xam nga frère dafa amoon église Pomokhor donc son vrai nom c'est Samuel waaw Samuel Adjuma Jara hmm. daan nodd ci jàkk ji jàkkay rue 3 bi sa boobu jamono jàkk ji construction bi ci boppam tubaab yi ñoo ko fa defar moom kër googule kër gi nekk rue 3 en dama doon jéem a denc bâtiment yi pour restaurer ko mais mu nekk bâtiment yoo xam ni comme dañu màgget ak tuiles la woon mhm. tuiles yooyu nag léegi boo ñëwee sopp nañ ko. Mhm. waaw. tonton waxtaan bi c'est passionnant. ñu bàyyi la kon nga tàggoo ak ñi nga xamante ne ñoo la doon teewlu. Euh, waaw wala kon seetaan ci Rewmi TV ak di la teewlu ci la rajo. di ko naan doon ma seetaan maa ngi leen di gërëm di leen sant <laughs> ñaari lakkale laa am tey laaj nañ ma lu ne tontu naa leen lu ne. <laughs> fekkee ni doyluwuloo leen. maa leen di invité une prochaine fois ngeen suivre ci. réew mi FM. Mm-hmm. ak réew TV. incha allah merci en tout cas. Anna peut-être un mot pour euh, la clôture. bon ainsi s'achève ce, cette interview avec euh, le grand homme euh, monsieur Lamine Ndiaye donc on se retrouve euh, la prochaine fois pour un nouveau numéro. voilà kon Anna wax na ko incha allah on se retrouve le samedi prochain ak beneen star waaw di gërëm ki nga xamante ni mooy Modou pour euh, les images et la caméra mention spéciale. a suñu tata mi nga xamante ni moo ñu dalal ci cadre bu neex bi ventilo yi di daw macha allah fii feex moom mi nga xamante ni mooy euh, ñaareelu soxna ci suñu nijaay yàlla na yàlla gën a jubóole euh, guddal fan wéral gën a jox barke nga xamante ni mooy njaboot gi kon amis auditeurs merci de l'écoute et très bon week-end chez vous